confiance en osant espérer que nous ne serons pas déçus quant à l'utilisation qui sera confirmée positivement par le contenu de vos rapports ça je crois l'autre élément. patrimoine historique nag joxe acteurs yu culture urbaine yi subvention bu toll ci téeméeri million ci suñu koppar mbëbët bi moo dina gunge acteurs culturels yooyee ñi gën a ñoŋal seen ay projet tey jilee ñiy jotandi nag ñoo di bénéficiaires yi dëkk fii ci Dakar naka noonu Thiès. mbir mi nay leer ñëpp di xam nu ku nekk xam moo am. kan moo amul naka la amee ndaxte dañ bëgg mu set ci leer nañ ku bëgg ci financement da ngay jëm def sa projet déposé ko am na kuréel guy njëkk bu koy saytu kuréel googu ñoom seen bopp day am ñu leen fa toogal am ñu toogal nguur gi foofu ñu tànn yi ci gën a baax bu ñu ko tànnee joxaat ko beneen kuréel goo xam ne day xoolaat loolu li ñu saytu ñoom naka leen ñu koy joxee ku ci nekk ab li mu koppar boobu ne moom la lay jaglelee ci li ngay def loolu yëpp la ñuy boole léegi nag daal di ñëw génne liste bi ñëpp gisandoo ko amul nëbb. lu toll ci téeméeri million ci suñuy koppar nag lañ nar a fas yéene jox acteurs culturels yi yi nekk ci région yëpp ngir ñi gën a ñoŋal seen i ay performance laata nag ñi taxawal ab décret présidentiel joriñ bu yor wàllum culture ak patrimoine historique moom xamle na ab création bu fond bu yees. def nañ décret boo xam ne ni yóbbu nañ ko du yàggate président dina jël xaatim ko mooy décret buy taxawal euh, kuréel goo xam ne. day yor ay koppar yu ñu jagleel ndaw yi yëngatu ci wàllu ib ombeeg lépp kuy jël xalaat boo xam ne luy méngoo koom-koom la jëmale ko cosaan ak aada mu yokk koppar ya li ko jëlee juróom benn téeméeri million ba ci milliard muy junney million fexe nag ñaari kuréel ya koy seq yii nguur gi yor ko lii ñoom ndaw ñi yëngatu ci mbir ma ñu yor ko ñuy diisoo ba ci conseil d'administration ba fa ñuy péncooyee bu nguur ga toogee ñoom ñu toogandoo ñu diisoo ci waxtaan ci. ginnaaw juróom ñaareelu projet bi ñaareelu phase yeneen nar na ci topp te loolee nag kaw rek bénéficiaires yi gën a fasal seen i ay projet loolee seen jëwriñ bi diñu ko xamal.